monsieur Karim Cissé ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngay directeur général euh, du travail et de la sécurité sociale ci ministère du travail tey mu doon bés bi nga xam ne ñoo ngi màggal lii di wàllum liggéey euh, fii ci Sénégal euh, mu tombeek jamonoy mbas mi muy ñaareelu at bi nga xam ne ñu ngi ko ciy nemmeeku nan la ñu fas yéene màggalee bés bi. Euh, maa leen di remercier d' abord di remercier madame di remercier say kilifa ak waa ci invitation bi euh, donc fête du travail bi ñuy amal euh, tey mhm. nekk na fête bu am solo ci bépp liggéeykat euh, rawatina liggéeykatu Sénégal muy góor di jigéen mhm. li ci xaw a doy waar ren mooy li mu tombe lii nga xam ne mooy mbas mi mbas mi dugg ci këru liggéeyukaay yi jaxase seeni kafaka mhm. Euh, nasaxal euh, bërëbu liggéeykat yi ak euh, liggéeykat yi seen bopp. Mhm. ba fi ne wax dëgg yàlla doole entreprise yi wàññeeku na waaye xëy mi tamit vraiment yaakaar biñ ci defoon yëpp mën nañ wax ni mu ngi ay jafe mhm. mën nañ wax ne dëgg yàlla contexte bu métti la waaye contexte la boo xam ne liggéeykat yi mën nañ ko ñàkk. Euh, sargal. ban format la ñuy appliquer ren euh, ndax gis nañu li fi xew daaw. waaw daaw moom wax dëgg yàlla amul woon dépôt cahier de doléance. Mhm. parce que santal seen bopp. ñoo ñoo am xalaat bu rafet. ne vraiment Sénégal mënu toll fii ci ay jafe-jafe. ñuy dem di yóbbu ay revendications. Mhm. donc ñoom seen bopp dañoo jàpp ci xeex bi. Euh, pour que ñëpp àndandoo mën ci am ndam moo tax déposé wuñ waaye ren nag dina am dépôt de cahier de doléance donc dinañ ko def comme niñ ko daan defee balaa mbas mi hmm. waaye dina am tuuti nag euh, aménagement ci wàññi euh, nit ñi koy teeweeg yooyu hmm. permettre que vraiment le minimum mën a dem euh, déposer seen cahier de doléance euh, à la présidence de la République. cahier de doléance yooyu la sax euh, monsieur Cissé chaque année dañuy gis ne dañ koy déposer génne nañ ci deux mille vingt comme amuloon waaye nag tey jii boo doon évaluer ci li nga xam ne gouvernement wala état jot na ko satisfaire ci revendication yi ci ne nan nga koy xayma. ci échelle lu dix. waaw am na am na wax dëgg yàlla ay jéego yu am solo yoo xam ne euh, euh, département ministère yëpp def nañ ko ginnaaw bi ñu waxtaanee ak euh, centrale syndicale yi. Euh, parce que ñun ñun ministère du travail bu ñu jotee cahier de doléances yi dañ leen di tënk bu ci nekk ñu def ko pàcc bi mu war a dem jox ko aussi Euh, ban ministère moo ko war a gérer mhm. donc loolu biñ ko defee ren wax dëgg yàlla gis nañ ne am na jéego yu ñu def bu ñu xoolee ren rapport bi ñuy génnee moom mooy xool rapport bi ñu defoon ci deux mille dix neuf mhm. diggante boobu ak léegi euh, yan jéego lañ ci def donc gis nañ ne lu mel ni convention collective nationale interprofessionnelle bi nga xam mooy régir liggéeykat bi ak ki koy liggéeyloo. Mhm. Euh, bi nga xam ne mu ngi fi woon depuis mille neuf cent quatre vingt deux mën naa wax ne ci fin deux mille dix neuf bi mhm. dañ actualiser mhm. ba signé convention bu bees ba mu entrer en vigueur en janvier deux mille vingt mhm. euh, mën naa wax aussi que ci période boobu tamit ci la ñu revaloriser euh, diggante patronat secteur privé ak central ci la ñu amee accord bu permettre ñu revaloriser les salaires dans le dans secteur privé. mu am nay jéego aussi yu am ci wàllu santé ci wàllu réforme fonction publique locale ci wàllu euh, éducation ci wàllu eau assainissement et cetera mm-hmm. euh, ci wàllu tourisme gis nga fan yi rek pacte social biñu ñu signé ci secteur tourisme euh, et transport aérien et cetera mm-hmm. donc wax dëgg yàlla am nay jéego yu ñu def yoo xam ne je pense que travers seen bopp nañ ko am na ay jéego waaye ñàkkul am na lu des. waaw am na lu des problème bi ñu gën a seetlu daal ci waxtaan bi bi nga xam ne moo moom moo des dëgg-dëgg mooy système de rémunération euh, fonction publique bi ñu waxoon ne étude bi euh, syndicat yi ñu ngi doon xaar ñu appliquer recommandation ak conclusion wu étude bi donc boobu la pense fekk des na bokk na ci point yi nga xam ne wax dëgg yàlla amagul saafara. kon tey boo doon xayma ci échelle euh, donc pour defal ñu benn pourcentage euh, fan la toll ci li jëm ci négociation waaw waaw du sori daal euh, diggante soixante dix te defe mooy juróom-ñaar fukk ah hmm. waaw juróom-ñaar fukk boo jëlee daal téeméer bu nekk Mm-hmm. je pense que mën nañu wax diggante juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett fukk yi saafara nañ ko. Mm, donc am nañu yaakaar te yeneen yi gëm naa ne. très rapidement euh, dina am évolution incha allah. ñuy màggal bés bi jamono ji nga xam ne euh, tey bëri na euh, yëngu-yëngu ci secteur yu bëri li jëm ci santé li jëm ci éducation ak ci yeneen secteur yi nga xam ne jamono ji ñoo ngi ñaxtu bëri na lool. tey yéen ñi ministère nan ngeen fa yéene taxawee ngir gérer situation boobule. situation bi mooy euh, foog ñu xool ku ci nekk euh, bu fekkee en tout cas ci wàllu secteur public li ci ëpp dialogue sociale dans le secteur public li ci ëpp euh, mën nañu wax ne ministère bi bi ñu dénk wàllu fonction publique ak ministère utilisateur maanaam ki yore xëykat yi foofu lu mel ni éducation lu mel ni santé ñoom ñooy jouer en fait rôle leader foofu quoi mm-hmm. bon ñun nag fi ñuy gën a fi ñuy gën a xaar mooy dialogue social dans le dans entreprises privées mhm. donc lu demee ni wàllu euh, secteur privé bi et cetera c'est dialogue social négociation collective les accords d'établissement les conventions collectives et cetera bon bële am nañ ci tuuti wàll en tant que gouvernement mais fële daal la ñuy gën a xaar fële ñu lañu gën a am euh, leadership donc li ci gën a am solo mooy maintenir euh, confiance bi nga xam ne entre am na centre entre centrale yi a gouvernement bi renforcer dialogue social bi mais aussi ubbi chantier yu bees chantier yu bees yi nag koy ubbi ci lu mel ni négociation collective xool secteur yi nga xam ne war nañ fa def rapidement convention lu mel ni sous secteur des transports d'hydrocarbures lu mel ni boulangerie lu mel ni euh, transport aérien yooyu yëpp il faut ñu gaaw euh, baral liggéey bi ba teg fa ay convention collective ba nga xam ne euh, dina améliorer condition wu travailleurs yi. justement mu am ay travailleurs yi nga xam ne état waxoon na ni euh, bu kenn dàqee ci jamonoy mbas mi tey euh, coalition des centrales syndicales génn ne am na lu toll ci quatre-vingt mille travailleurs yi nga xam ne ñàkk nañ seen liggéey te mbas mee ko waral ndax dafa am taxawaay gi nga xam ne war ngeen ko mën a def. ngir ñu waaw peut-être peut-être peut-être leeral ne. ba ñuy ba ordonnance su président bi di interdire licenciement période loi d'habilitation bi la war maanaam ça duré juste trois mois hmm. ba mu jeexee dañuy delloo euh, vraiment mbir yi fa mu nekkoon hmm. maanaam euh, souvent employeur bi dafay am euh, benn liberté benn marge de manœuvre ci wàllu licenciement pour motif économique mu maamee ay jafe-jafe yoon tegu ko lu diis trop pour mu séparer ak travailleur loolu du ci négligence wala woyofu inspecteur du travail bi loolu mooy code du travail bi nga xam ne moom moo fi am te moo xew ci dëkk bi tant que soppiwuñu ko donc ku am li li difficulté li licencié euh, des difficultés économiques wala nga defar organisation intérieure yoon moo la may nga respecter benn procédure boo xam ne article L soixante euh, code du travail moo ko définir ak yi ci topp pour xool naka ngay séparer wax liggéeykat yooyu. mais mais quand il faut que ñu def attention képp kuy génne statistique. Mhm. da ngaa war a wax maa ngi ko teg ci tel rapport wala ci tel enquête wala ci tel étude. Mhm. munoo tëb rek nga balancer comme ça cent mille quatre vingt mille quatre vingt dix mille et cetera xëy na boo duggee ci biir informel bi. Mhm. ci biir informel bi mën nga wax lu bëri te boobu foog nga jël temps aussi def euh, euh, des enquêtes euh, sérieuses et cetera donc ñun en tout cas ci statistiques yi ñuy wax ñun day fekk ñu natt ko avec toutes les inspections du travail yi nekk ci Sénégal. ku nekk ñu ne la yow ñaata licenciement nga recevoir lañ la notifié foofu wala ñaata chômage technique nga jot euh, foofu travail le employeur bi foofu et cetera et cetera ñaata travers le concerne et cetera ñun ci base yooyu buñ ko dajale ci dañu am chiffre boo xam ne mën nañ ne du chiffre bi regroupé lépp luy licenciement parce que licenciement tamit mën na am te inspecteur du ko yëg mm-hmm. voilà donc les souvent c'est les licenciements yi nga xam ne dañ ci dañ ciy informé soit travailleur wala employeur bi informé donc euh, euh, inspecteur bi donc yooyu ñun liñ ci am motul deux mille on a on avait dit ci diggante mars deux mille vingt mhm. ba février deux mille vingt et un loolu liñ ci am c'est environ ay mille six cent et quelques lañ ci gisoon ci wàllu chômage technique ñu répertorié ci loolu lu xaw a jege dix-sept mille notification de chômage technique donc loolu mooy li nga xam ne chiffre boo ko waxee buñ la laajee di nga wax fi nga ko jëlee mm-hmm. donc ñun waruñu ko extrapoler mën nañu reconnaître juste que mënul fatt euh, lépp li nga xam ne moo am ci licenciement wala chômage technique mais au moins loolu moom am na moom kon da kon yéen jàpp leen euh, wala sax euh, gëmu leen trop euh, li nga xam ne mooy chiffre quatre-vingt-treize mille yu ñu avancé. non non non non je pense que ñoom sax boo leen laajee xëy na dinañ gën a expliquer xëy na ñoom leneen lañ bëgg wax am na nuñ koy comprendre ñoom da dañuy wax sax plus impacté impacté ça ne veut pas dire que dàq nañ la ah, impacté wax dëgg yàlla nag bokkul ak licenciement mhm. man yow yow moomu nekk fa ngay liggéey nii sax peut-être que impacté nga. Mhm. yaa ngi téye si liggée et cetera donc c' est c' est euh, parfois mën nga am koo xam ne dafa am réduction d'heure de travail wala muy def travail à temps partiel mais lépp daal li gën am solo mooy il faut que ci wàllu statistique du travail mm. vraiment ñuy référé wu ci les li nga xam ne mooy les chiffres qui sont officiellement sortis par la direction générale du travail qui a mm. une grande direction des statistiques du travail d'accord donc à part yooyu ANSD bu génnee c'est important c'est crédible hmm. mais qu'on ne euh, parle pas de chiffres yoo xam ne euh, waxuñu source bi laal d'accord euh, kuy wax statistique c'est important nga wax chiffres yi ça permet euh, ñu jeexaleeg euh, vingt cinq travailleurs yi nga xam ne ñoo nekk ci entreprise TUF euh, donc bu karo bi ay délégué ñu wax ne dañ leen teg loxo gannaaw nag ay ñaxtu yi nga xam ne am na fa te ji dossier boobule nan ngeen koy suivre. mooy entreprise u karo bi nekk Sindia. bon boobu liñ ci xam daal. liñ ci gën a jàpp mooy li xam ne inspecteur régional du travail ba fa nekk mhm. defal nañu ci ay rapport yu bëri depuis ba ba ñu commencé dégg coow li foofu mhm. donc li ci am mooy ay liggéeykat yu fa nekkoon amoon ay contrat durée euh, déterminée mhm. ba contrat bi waree jeex le vingt huit bi euh, donc direction entreprise bi euh, mais du ko renouveler bon loolu am na ñoo xam ne yoon may na leen ko ci wàllu code des investissements ak ah, agrément bu la APIX di jox ne la par exemple pendant juróomi at bu la neexee toujours yaa ngi euh, renouveler euh, ce contrat de travail alors que ñeneen ñi mënuloo ko renouveler plus d'une fois boo amul agrément boobu waaye entreprise bi ñoom dañu am agrément boobu donc dégg nga wax ci donc ba renouvellement bi jeexee ñoom ñu ba contrat bi jeexee ñoom ñu duñ ko renouveler donc ci biir ñooñu nag liggéeykat yooyu yi nga xam ne dañ ne duñu renouveler seen contrat mm-hmm. euh, de travail à durée euh, déterminée am na ci seize délégués du personnel donc loolu moo indi woon euh, vraiment coow ax mm-hmm. ak xëccoo bi vraiment événement yi ñu vivre temps yi nga xam ne neexul kenn loolu moo ci amoon donc ce qui fait que dialogue social bi foofu wax yàlla Euh, li gënoon a li gënoon yombal mbir mi daal mooy que employeur bi euh, xool naka lay rétablir la sérénité le dialogue social avec les délégués aussi bien les délégués syndicaux que les délégués du personnel. Mhm. parce que waaw. ndax tutelle bi dugal na ci làmmiñam waxtaan waaw euh, tutelle tutelle bi mën na ci teey quand wax dëgg yàlla ku ñu laaj ñu jox ci suñu xalaat mais. Euh, ci wàllu inspection du travail mm-hmm. souvent gox boo dem dafa am inspecteur boo xam ne loi moo ko fa teg jox ko ay prérogative jox ko ay attribution bon mën na nag di waxtaan ak tutelle bi di ko laaj xalaatam tutelle bi mën na ko euh, orienté teg ko ci yoon et cetera hiérarchie bi ak euh, respect bi am na n'est-ce pas dans l'administration mais ci wàllu inspection du travail code du travail dafay jox ci région boo dem inspecteur ba fa nekk am na yoo xam ne ay compétence ay attribution yu ko jox la. donc li ñu mën rek mooy di surveiller ndax mu ngi koy teg ci yoon wala ah, teg ko ci yoon. donc ba fi ñu toll nii nag wax dëgg yàlla ñu ngi rafetlu liggéeyam dem na ci entreprise bo def na fexe na ba def ay jéego yu mag a mag a mag ci ci ci taxawaayam moo tax ba am fa pour la première fois élection de délégué du personnel te délit bi yombul woon. Mm-hmm. Euh, ba am fa travailleurs ñu xoolaat seen condition de transport ak seen i condition d'hébergement ñu amaat aussi euh, n'est-ce pas ay ci wàllu équipement de protection individuelle et collective ak horaire de travail beeg yëpp lépp lu fa am rek inspecteur bi moo dem imposer ko ba employeur bi nangu ko travailleur aussi rafetlu woon ko donc li xew nii mënuñ lul regretter ko parce que euh, mën na méngoo ak yoon mais delloo dialogue social ak paix sociale ci ginnaaw mhm. loolu mën na jur ëllëg euh, yeneen mbir yoo xam ne du du baax ci li nga xam ne mooy outil de travail bi. monsieur Karim Cissé ñu lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi lay gërëm bu baax Elisabeth di mhm. gërëm waa réew mi yëpp euh, di euh, président Mbagnick ak ñëpp jërëjëf.